Música Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen balax leen wax ni tey jii fii ci Daaru Cuub Daaru Cuub nag buñ fi ñëwee dañ fi ñëwee euh, di nuyu mbokk internet yi di nuyu Sénégal yëpp di nuyu aussi tamit monde élevage mhm. merci jërëjëf tey ñu war a dem tey euh, bergerie maam Sibéeru bu bay daan demee mhm. euh, tey lan lañ fi a fekk comme relève lan noo préparé bergerie waaw xam nga relève bi moom j'ai de différents parce que mal day taxaw daru raqu bay daan la ñoom ñaar ñoo bokk ben yaay seen yaay génitrice la soxna Anta soxna Anta doomu Bijou Jama la Bijou Jama Assane Deur soxna Anta doomu docteur Boy docteur Boy Washington Washington Boy séeréer donc soxna Anta ñaari produit yu ko composé produit extraordinaire la alors ñu jël soxna Anta jox ko All Black All Black

côté doom Vladimir Poutine mu ngi ci kaw xam nga ko. waaw <laughs> yow xam nga ko. ok xam naa Poutine moom. voilà moom laa bëgg gisaale sax mu ngi ci kaw comprendre nga. Euh. aussi am na yeneen jeunes mâles tamit ñu ngi leen di étudier. parce que généralement man su ma defee benn produit dama leen di bàyyi ba ñu dem 5 à 6 à 7 mois ma porté sama choix. comprendre ci deux ou trois mâles. Mm-hmm. comprendre nga soog a bàyyi mu mu mu évoluer quoi. macha allah donc am na yoo xam ne ay prétendants lañ te promoteur lañ aussi tamit. ok ñu ngi leen di xaar. lan la fi bàyyi euh, instant bi est ce que tey bay daam mu ngi nii dem lan euh, euh, février fi nekk moo leen sayir wala am na ay doom yu doog a judd tey. bien sûr am na say doomu jigéen Assane génneel ko doomam bu jigéen bële. mbéy muy waaj a génne ne nga ni mi ngi toll ci ñaata moom. waa kee xale la amugul rakk comprendre nga. Uh-huh. elle a exactement comprendre nga sept mois. sept mois mais xam nga bay daan doomam yi. waaw. waxuma la sax euh, suñu amee set mois mais bu ñu defee benn porte rek. Ah. soo ñëwee da nga naan tem est-ce que defuñu deux portes wala trois portes. mais añal bi nga may wax ne yow. waaw bi rafet na de. way way way macha allah sept mois. sept mois. waaw ah, bay bay bay daan production yi rafet la fi def ah. non non bay daan moom bay daan légende la Cissé Dia. oui oui oui oui oui oui. kii kii ko amal ana yaayam. yaayam mu ngi ci kaw. Mhm.

actuellement ni kii moko ko mal euh, maal dama ko dougal nak quoi mal ah, bees la bu bay daan demee laa ko dougal moy ablay nar ok comprendre mais bo xolé ablay nar aussi tamit c'est un mal exceptionnel ok comprendre ci Lamine job la nekkoon jaar na ci président Omar Sow ah, ah Ablaye Naar mi ngi fi waaw ah oui ablay nar mal exceptionnel la mal mais xoolal jeune femelle bi mu bi mu jour ak doomu bay daan bu jigéen bi donc xar man dama koy tek ci ay base yu clair pour comprendre la sélection base yu clair ak claire te laa koy teg pour sélection quoi machallah voilà. Ablaye Naar kañ la fi ñëw mais xaaral kon def na fi 8 mois. non defu ko fi 8 mois. kon doomam bi dafiy soog da nga ci tëboon. non doomam bi xam nga nekkoon na ci sama benn partenaire. comprendre nga. après foofu la tëboo. donc résultat yi ci laa sukkandiku sax pour gën ko mën a dugal daal. mais kii mu amal doom bi nag kii doomu bay daan la. yaa yaayam doomu bay daan yaay yaay tëng bi doomu bay daan la. waaw yaayu tëng bi femelle bii topp ci bay daan. Sibéru añel bii rafet na nga ne kii mooy doomu Ablaye Naar. waa añal bi doomu Ablaye Naar la. Ah. mais yaayam doomu Baydaan la. ok donc dama jël euh, dama jël Jolina mooy rakku Baydaan. waaw Jolina. fekkoon naa ko fi mu ngi mën na jëlaale. naa ko jëlaat dama jël Jolina. ok boole ko ak Baydaan. ok mu tëb ko benn femelle judd ci. Ah. femelle boobu léegi nag comprendre nga ñu jël ko jox ko Baydaan tudd. maa ngi jël noonu Jolina mi ngi nekk euh, femelle bu rafet ni nekk. Euh, moom ngeen gis noonu mu nekk rakku daan rakku baydaan baydaan boobu lañ bay daan mu jël benn femelle. mën nga ko génne sax. mu jur benn femelle après nag femelle boobu moo jur euh, añel bee ak doomu Ablaye ak Ablaye Naar ah. bien macha allah léegi moom yaayam ça veut dire que yaayam anamu léegi. yaayam mu ngi nële ci ok ok mu ngi ci kaw. mu ngi ci kaw waaw léegi. voilà léegi nag yow après mu juddu mu convaincre la nga dem jëli Ablaye Naar. waaw ma ko. macha allah ok. liggéey man li ma ci gëm. Cissé Dia. Uh-huh. doole mensuration. Mm-hmm. waaw waaw. añeel bi mu ngi ci ñaata mois ci benn. bon añeel bi aussi tamit. moo ngi yaa voilà léegi moom maamam ñoo ànd noonu. moom maamam ñoo ànd. kii mooy rakku Bayna bi di joli na kii mooy rakku Bayna doomam nga teg ci Ablaye Naar mu jur ki mu jur mais añeel bi si biir rafet na. Ah. ñaata mois. 6 mois. oh. waaw mois te dugal naa ko mu tëbu. parce que man xar 6 mois kan bay daan bay daan xam nga tamit boo amee six mois toll nii bu la neexee tëbu. waaw moo tax ma ne la. moo tax ma ne la gis nga souvent. Uh-huh. hypothèse bi gars yi di développé. waaw naan xar bi warul teel a tëbu wala nee naa la loolu. Uh-huh. Ah, dañ koy wax ni day dépendre ci xar bi sax. day dépendre ci xar bi rek. oui mais xar. parce que xale bu jigéen sax ci nit rek di nga gis xale bu jigéen bu am 15 am jëkkër am jëkkër. toolu ci doomam yi duñu màgg. voilà loolu. c'est donc day daan kon day dépendre daal ci ci ci ci deret bi. day dépendre ci deret gi. parce gis nga ma la. Mm-hmm. rëy ci deret lay doon. rëy ci deret lay doon. mais souvent nag gars yi dañuy développé man des fois damay dégg seen émission yi sax yenn hypothèse yoo xam ne man damay yéemu sax parce que doo xam nan la ñuy soutenir seen argument yi. ok man sama xar yëpp six mois boole naa la ak maal katabu te pourtant comprendre nga pour nga am femelle yu ma gën a rëy ay femelle surtout si waa problème lay doon. Uh-huh. pour nga am maal yu ma gën a rëy samay maal yi problème lay doon. mais li nga wax nii di koy confirmer foire bi passé rek am na benn waaju ne kaas bi nee xaram six mois la. ko maal bi sàcc tëb ko. mais tam ba mu juree xal bu rafet la jur euh, bi mi ngi rafet. voilà ok. Mm. ok hmm. kon après tey euh, hmm. Ablaye Naar mi ngi fii pour relais ah. voilà Daaru mi ngi fii. waaw Poutine mi ngi ci kaw. waaw beneen beneen maa ba danoon Poutine nag noir a blanc wane ma joxe ko. waaw non non mu ngi fële sama kër. ok waaw kër kooku rek. kooku rek kooku rek. kooku rek non non kooku kooku dafa doy waar man man waxoon naa la ko. kooku rek c'est autre chose. donc euh, donc euh, lii dafa dafa dafa garaaw. voilà bergerie Mame Souberou tey gis ngeen ni le travail continue. waaw parce que bay daan def na fi wàllam def na fi li mu fi war a def yoon la ku mel ni tey beneen maa néew te Ablaye Naar bi ku ko xool xam xam ko ci ferme Maxtuum mu demoon foire Kaolack Kaolack ba def fa lu am solo nekk fa peut-être mënoon naa ne temps yooyu bi nga nekkoon espoir bu rafet le plus beau à Kaolack tey mu nekk fii ci biir Zéro dem na tamit BKR dafa liggéey bu rafet waaw BKR jaar dafa ci Omar Sow kon Sibéru léegi waaw foofu la jógee foofu la jógee après mu yóbbu

parce que sooy faral sa xar aussi te mensuration yi mu warul am mu war am amu ko dayo bi mu war uh-huh. kuy sàqami te sexoo dara sa ngay nax xoolal ma femelle bi si biir femelle bi kala jëlal ma kee yow waaw femelle dafa nekk actuellement sax di am doom non bu weex bi waaw bu weex bi kii mooy yaayu Poutine mooy yaayu Poutine mooy yaayu Poutine wala ah, Poutine ni toll te moom amagul rakk comprendre nga c'est ça Poutine amagul rakk non Poutine amagul rakk mais instant bi porté na waaw na mu Je ne quoi. pas waaw quoi man non lay pas man du duma du mal. fait Je ne sais pas si yenen yi bi def tour tour uh-huh. je me retrouve avec plus de 100 bêtes de sélection Je comprendre uh-huh. man non non quoi mais qui tu vois que résultat là. oui oh, résultat là. comprendre qu'est-ce que. Lui, élevage quoi oui Bien le

béy daan toujours en forme macha allah. waay pourtant nag instant bi sax dama wàññi poids bi de. Ah. parce que xam nga xar boo ko moomatul rek da ngay comprendre nga da ngay yem. waaw poids bi de. Ah. mais kii su ma ko une semaine ce n'est pas possible ça. mais instant bi eh, euh, mais ma loto maa bettul c'est-à-dire xar bi benn maal mënu koo gagné ci Sénégal Ben mal. actuellement non déjà c'est le mal le plus long dans le monde. Ouais. C'est le mal le plus long dans le monde donc mal, xar mënu ko gagné. C'est ça le problème en réalité C'est le mal le plus long dans le monde.

sérieusement pour dire vrai. ok Baydan, Daan moom moom moi record yooyu mooy record poids mooy borom record LCS. xam nga pourquoi je vais te donner comprendre euh, un exemple très simple ah. gis nga. Mhm. loo fi gis muy compétir. Mhm. soit muy jël deuxième wala di jël premier. ba pare constante aussi tamit ci ay mensurations. comprendre nga ce que xamal ne moo premier bi. parce que bay par exemple compétition yi mu dem. Ah. doo gis benn maal bu ko raw rawaat ko. bu ko raw amul.

tu as vu donc Baydan, vraiment c'est un mal phénoménal. à combien de mois actuellement. bon moi Soga a 3 ans et quelques je pense que mois de mars il normalement comprendre que ci lay dugg ci quatrième année. mais bon, dans ces compétitions à 23 mois commence à compétir. 23 mois 23 mois commence à compétir pour le plus jeune mal pendant très longtemps. parce que bi mu ngi deux ans ok fii comprendre il a commencé compétir à 23 mois 22 23 mois commence commencé compétir dugul seen mal demul espoir dafa ñëw non non dafa adulte adulte. comprendre donc à 23 mois. Hmm. commencé à à compétir. de compétir avec ay mal yu 4 ans mal yu 5 ans mal yu 3 ans à chaque fois bu êtes dans un lot de compétition il est le plus jeune mal. mais néanmoins comprendre deuxième place nous lu mu metti metti metti da koy takk ba mu franchement. macha allah donc euh, c' est autre chose quoi. dama ci loobee ma xool. waaw <laughs> su ma loobee ma gis fële. waaw boobu lu fa nekk. tubéeru box boobu loo boobu gis naa fa ay femelles yu àndoon ak béy daan. waaw ñooñu ñooy ban ñan la. waaw lox yi xam nga kële booy génneel ma tët nuyu ba la tëng la gis nga. waaw tëng la xool ko. kii tëng la. tëng la benn porte mu ngi nii. mi ngi doog a tëb. oui bay naa na ko topp. doomu taalibe la moom ak Jolina ñoo bokk yaay comprendre moom Jolina ñoo bokk yaay d'accord mu dem na ci kii. kii tam beneen tëng la ah, ah tëng yi macha a tout cas ma gis euh, mooy say tëng moom xam nga lu ñàkk tëng yu am doole la xoolal ma ñooñu ñaari tëng yooyu doomu bay daal lañ ku ñuul ki jëlal ku ñuul ki mooy doomu Ablaye Naar waaw ah, doomu Ablaye Naar bii doomu Ablaye Naar bii man daal xaw ma daaw eh, eh, eh, allah oh mais asa. mais Sibir am Sibir reviens-moi un nan nga def ko nan ko loo woon ba am ko fan fan la jógee ba nga ba ak ba mu juddoo nan nga xamee ne kii champion lay doon. waa xam nga Beydane nee naa la. Mm-hmm. xam nga nee naa la Beydane. xam nga Beydane nee naa la. Uh-huh. ñaari xar yu ko composé. Ah. dañoo baax. waaw ah. nee naa la Beydane doomu soxnaanta Anta la. Soxna Anta naa la yónnee photo moo nekk nële bi mu amee six mois ci bâche bi. ok ñu jël soxnaanta Sonante Anta Bijou Jamaa. Bijou Jamaa la. Boy lañ jël. Uh-huh. ko Bijou Jamaa. ok All Black. All Black ñu All Black doomu Subeeru la. All Black tëbee sonante. Black la donc All Black Biden, hmm? All Black est l'un de ses meilleurs produits. All Black est l'un de ses meilleurs produits. comprends comprendre parce que li mu def fii ak Baydaan bon amul fenn. ok c'est ça quoi. macha allah. waaw mais instant bi mu juddoo. Hmm. booba muy am ñaata mois nga commencé xam gis ni ah kii war naa ko mën a war na a def dara sama bergerie. waaw xam nga xam nga loolu. du ma hmm. bett parce que xam nga soxnaanta aussi ah. boo xoolee mensuration imam dafa rare ci femelle. parce que son mari aussi il a des mensurations très rares hein, très rares. ok donc lolu aussi daf ci am solo waaw. machallah waaw ngi tej gaay nga ñew doomu mm. nek veux di mi ngi dem c'est ça gis nga yooyu ndam la veux dire la gis nga ko. Uh-huh. fi mi uh-huh. uh-huh. ngi je veux enlèvement ba gaay di waja doomu je di ak femelle bi ko c'est pas n'importe quelle femelle la Mati doomu Machala. la. macha allah junior. kon est hein? transfert.